إن الحمد لله نستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين nooy tan sunu borom subhanahu wa taala di julli di salmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu ngi gërëm sunu borom nu defalaatee tawfiq ba ñu dellu si waat gërëm keppaaru xam-xam di waxtaane dund saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni ma koy baamoo ci tàmbali daal bu ne woowale góor ak woowale jigéen nga xam ni borom bi subhanahu wa taala moo leen tànnaloon boppam li soxbati nabi yi comme ni ko asahaabi yu jalil doon waxee abdullah ibn mas'ud aw nit a góob woo xam ni judduwuñu rek nekk ay saxaaba waaye du ñoom ñoo bëgg nekk ay saxaaba tax ñu nekk ko waaye yàlla comme ñi nga xam ni aalamu xaytu yajalu risalata ni yàlla tànnee ci biir jaam ñi ka ko soob mu yónni ko noonu la yàlla subhanahu wa taala tànne ay nit def leen ñu nekk ay saxaaba ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi mbokk yi dafa amoon ay góor ak ay jigéen waaye nag inna fi xasfihim la ibra ñoom day toog di waxtaanee seen dund ak waaw la cay nekk ak fàttali la tax mooy aw nit lañu woon woo xam ne dara rey àddina daf leen sëfut woon am ngërëmal seen borom nag jaral leen lu ne ngay gis ay mbir yoo xam ni xawaariqul aada maanaam doomu aadama baaxoowul di xam loolu te it nag takaadu laa tusaddiq comme tuuti kon rek yenn ci xisas yi ngay dégg doo dëkkal su fekkoon ni du war yàlla dafa tàggat ay boromi xam-xam yoo xam ni ñu setu xam-xam lañ mën a wattu li nga xamante ni mooy taarix saxaaba yaak ñu leen jiitu woon ak ñëw seen gannaaw su nekkoon du woon loolu de da nga gis ay mbir yoo xam ni xaw tuuti kon doo ko dëggal ndax kat aw góor la noonu ak aw jigéen woo xam ni laa tulhihim tijaratun wala bay'un an dikrillah ñoom day seen yittey bopp lu mu leen sëkkatal sëkkatal seeni soxlay bopp lu mu leen jiital jiital seen commerce lu mu dox dox seeni yitte lu mu bari bari loola mbokk yi daaw def mukk lu kolloog gaawaayu xeeb seen digganteeg góorgóorlu ci seen digganteeg seen borom kon waxtaane yi mel lu am solo la rawatina ci waxtu yi nga xam dafa mel ni exemple bi di yi jurit war a teg ci kanamam dafa manqué doo gis lu dul ay nit yoo xam ni waxuma la gis leen waaye xam leen rek wala dégg leen rek daf lay delloo gannaaw ba tax yàlla mu ne fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw sunu gëmee comme ni nga xam ne noonu la saxaaba yo gëmee woon ak ñeneen jiitu woon kon day loolu la ñuy wane mooy ñun day kindeeku nañ ñun day baax nañ ñun day tegaram ci yoon sunu borom bi ñu ko xam naan ulaayka alladina hadahum allah ñii dañoo ñi yàlla ci di jubal leen baaxal leen defar leen fabi hudaahu muqtadi bu bëggee koo roy gaayaangoo ndax ñoom ñoo doon roy waa ji di sallallahu alayhi wa sallam li tax ñu mel nii mooy yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar mooy ñoom lay danoo bàyyi woon xel lool gis doowee nga xam ne saa bu yegsee nit ki dañ koy jébbal borom subhanahu wa taala summa ruddu ila allahi mawlaakum alxaq kon mbokk yi ñii day toog di waxtaanee seen dund bokk na ci li ëpp solo ci yi nga xam ne jullit dana ko toog di defaat ko wax toog xam ngeen ni ñu ngi nekkoon ci dundu kenn ca soxna ya waaye nekkoon kenn ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy Juwayriya bint al-Xaaris Juwayriya bint al-Xaaris nga xam ni ci ñuy jàppee woon ci xare la woon waaye mujj na nekk soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ginnaaw lii nag gisuma teraanga ju gën a màgg fii ci àddina yoo xam ne jigéen yi dana ko am wala ka nekk soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon ngeen bind yi weesu sànq bi ñu doon wax leeral Juwayriya bil Xaaris mooy kan balaa moo gisee lislaam Juwayriya bil Xaaris mooy kan balaa leeru ngëm yàlla sàbbi ci xolam Juwayriya bil Xaaris mooy kan ginnaaw bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jëlee mu nekk soxna kon tey ñoo ngi continuer ak Juwayriya bil Xaaris ñaareelu xaaj bi ci dundam topp comme ni ko xaafid Abu Ammar Cheikh Abu Ammar di waxee wa daxalat fi bayti nubuwa léegi nag tàbbi si na ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàbbi si ku Juwayriya tàbbi si ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn symbole bu muy wane te ma fàttali waa fa inna dikra tanfaul muminin mooy xam ngeen ni soxna yi nga xamante ni ñoo nekkoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu bari ñoom am nañ ay jaar jaar waaye képp ki ci nekk ci biir kër yonente bi rek dafa am soppeeku bu rëy kuy feeñ ci biir dundam comme ni mu doon feeñee ci jullit ñëpp waaye nag an nuqta huna mooy li may wax bis bu nekk bi aji këm yàlla ci jigéen li nga xam ne noonu la góor ñi baree ay jaloore ba léeg-léeg bu ñuy wax ci dundu saxaaba yi dañuy bokk ay jigéen la ay góor rek a fekk fekk déedéet amul kay am na ay jigéen yoo xam ni ko góor ñu doon teg seen tànk dañ ko doon teg seen tànk ñooñu kat ay delluwaay la ñeel jullit bu jigéen bu gëm yàlla bi nga xam ni dafa mel ni ku gëlëm xamul fu muy teg tànk góor yi bi seen xaaris ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Cheikh Abou Ammar mu ni ginnaaw boo xam ne Juwayriya bint al-Xaaris radiyallahu anha daf doon dund ci palet aayam di mu taafia ci xam ngeen ni al farq bayn al qasr wal xayma wal xayma Juwayriya bint al-Xaaris mi ngi doon dund ci biir kër palet papaam ndax buur la woon wala boog kilifa gu mag la woon ci biir biir lu mu dëkkoon tey nag génn na foofu léegi dugg ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw fii waxtaan comme doon kon Juwayriya bint al-Xaaris génn na ci pale dugg ci ci xayma kooku wax ba du am solo am la muy jullit bu jigéen ñi koo moom li ëpp mënees naa bañ a joxe ci moom mi ko am mel nii waaye jigéen dafa bokk ci qualité yi mu war a am yaree ko boppam bu ko yàlla ngeen ko jëlul borom kër mu tàggat boppam ci yow doylu maandu ah yem ci ni ko yàlla subhanahu wa taala tëddee warda bi ma xasama allahu laka takun agna annaas boo bëggee ëppale ñëpp da ngay doyloon la yàlla ba yéen ci yàlla bi ne soo bëggee ëppale ñëpp da ngay doy loolu la yàlla subhanahu wa taala jigéen yàlla mën na ko wërsëgal mu judd ci famille bu noble bu am xaalis wala boog ñoom baraka ñoom bay la wala ëllëg yàlla mën na koo nag koo mu am borom kër bu ñàkk boo xam ni da koy doxal génne ko ci am saax dugal ko ci xëy na kooka nag fala nattukaay yi jëm yàlla yi nag di soriante di nga gis ak jëm yàlla joo xam ni borom kër bu ko génnoon ci saaxam kaw yóbbu ko ci min asfali xayma ja mën na faa dëkk lu tax du jëmm ji moo dëkk ci waaye ngëm nga newoon ca kaw saax ya moo wàcc ci biir xayma ja dañ ay jullit yoo xam ne ñu gëm yàlla ñu góorgóorlu lañ waaye bu leen yàlla mayee war war dëggal borom kër rek seen ak doyee tàmbalee kay lu tax dañoo tàmmoon noor dañoo tàmmoon lu neex dañoo tàmmoon am-am ab jox-jox loo bëgg ngay sol loo bëgg ngay lekk loo bëgg déedéet jigéen du xalam loolu bopp ndax ki ko yàlla ñu seet digal la xamu ko kon jigéen ci war naa yar boppam ak lu mën a am mu yëpp nii ay jigéen yu ragalum yàlla yu góorgóorlu woon suuf ëppale ko ñoom la yàlla wër ko jël ay borom kër yoo xam ne liñ amoon ci alal ñu wàcce seen bopp ba dëkk ci biir xëy na waxoon naa leen ci xut bay juma soxna soo ko nga xam ne wala ci ndax ay saxaaba Fatima soxna Omar ibn Abdul Aziz soo xam ne yow say mag sa ñaari mag kenn ku nekk nekk na amirul muminin sa baay di amirul muminin amirul muminin ñëw tax man xam nga que irtal bi daay woon nihaaya ah li ngi tabb ci lu mel noonu benn bay أخت الخلائف وال- والخليفة زوجها ah ki nga xam ni kat ay frère am ay xalifa la maamam xalifa la borom këram di amirul muminin mu yor ci ay or ak alal loo xam ne boo ko jaayee njënd ak liggéey borom këram bi mu ko takkee lépp la ñu yàlla bàyyi ko fa ci yéene ànd ak moom ci mbaaram ban ban loolu nag ngëm yàlla dëgg ko man lu mel noonu seen dóor bu mel noonu moom la Juwayriya bint al-Xaaris day di wan di wane kon Juwayriya bint al-Xaaris al-aan intaqala ila a'zami zawjin fi dunya kulliha waaye nag dëgg yàlla war naa mën a toog foofu bu demee ndax nag dama yaakaar ne jigéen bu tànn borom kër bu tànn borom kër naan yàlla naa am ku mel nangam ba yonente bi xam jël ko bu dee àddina ay biram defar na ma ok dama lijjanti ci àllaaxira ndax lu fay xew waaye bii ci àddina am ay mbiram baax ndax jigéen yootu wut ci borom kër lu gën a rëy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk sa borom kër loolu loolu loolu succès bu rëy la ndam bu rëy la boo xam ni jigéen ñi daaw bu tëree daf leen daan yéege kaw lool waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alladi lam yamliku qasran wala mataan zaila wa in kaana yamliku saadata dunya wal axira bi idnillah yéen yàlla ba amul daaxum kaw amul fa tey yu ndaw yi ndaw yi naka amee la ko ah amul ay ay ay ay ay ay congélateur yoo xamante ni lu lu seet lu nekk ba lay génne ngay naan ah déedéet waaye yéen yàlla bi salaa salaam lii teraanga fii ci àddina ci ku gëm yàlla di teraanga ci àllaaxira yàlla mi ngi ko teg ci loxo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax kër gii jigéen yéegu na faa dugg ba taay ko mënu faa dugg yéen bi day jàngale woon yàgg benn jigéen ñëw ci ko ni ko xam nga yàlla ko salaata ni wamraatan muminatan in wahabat nafsaha linnabi bokk na ci li ñu koy dagal léegi jigéen bu daggee woon dagaan ba ñëw ne yonent bi may naa la sama bopp yonent bi ni ko bëgg naa la sëy ba xatum xam nga loolu moom ñun kenn kenn xalaatu ko loolu mënta nekk ci ñun waaye benn jigéen bu ñëw ne yonent bi may naa la sama bopp mbir ma jeex na mooy borom kër loolu bokk na ci yi ko yàlla may moo tax jigéen ñi dañoo bëgg loolu mbaax lu bëgg leen nag wallaay wax toujours ma ñu ne buñ jàng benn kerte ndax lu mbët yi bëgg la bari yi bëgg ndaw si daa ñëw fekk yonent yàlla bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko may naa la sama bopp yonent bi siggi xool ko daal di dëgg bu toog ba mu yàgg mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may naa la sama bopp yonent bi xool ko mu yàgg daal di dëgg benn saxaaba bi laaj ma ni ko yonent bi bu dee moo ci xëy jéem man li bëgg naa ko man jéem ma kaa may bopp mu ne ko xalaat kooku hunaaka nuqtatun latifa mooy ndeketee takum soxna bëgg ci la de ak ci am solo yéen ci lu mu bari bari lu mu lii nii loo leelee bëggal ci bu amul rek du dem li ñu tuddee choc mooy bëgg kenn ku ne bëgg sa morom ah bu amul du dem ak lu ngeen mën a yore leen bu ngeen yore woon diine sax du dem moo tax yéen yàlla bi nuq sa boobu bàyyi ko xel baax moo tax mu ni saa boo bëggee ak jigéen ñi yàlla dina xoolal ba gis loo ngay jox li tax nga mën a ànd ak moom kon Juwayriya bint al-Xaaris yow na biir kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kër boo xam ne dara ci matériel ak naw ko waaye dañ xaqaqa fiha al-ubudiya aw fihi al-ubudiya kër boo xamante ni moom dëgg dëgg jëmmal ko ak nekk jaam ñeel yàlla subhanahu wa taala mën na faa kon nag léegi Juwayriya bint al-Xaaris génne na ca pale ba dugg ci kër xayma mbaarat na génn ci kër mooy juróom dugg ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy baytu nubuwa bi tam yi gën a neex yi nga xam ne dafay fàttaliku ci dundam mooy bis yi mu nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu nag lu war a mën a nekk la xam ngeen yonent yàlla dana saxaaba yi xayrukum xayrukum li ahli góor ji gën ci góor ñi mooy góor ji gën ci waa këram te man nag maa leen gën ci taawaate yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ku amoon jafe la ci ay soxnaam ku amoon yërmande ci ay soxnaam ku wàcceewoon boppam la malgré que li mu doon yéen xëmm daax la xare ma fee azaka ja fee li ñu war a firndele fii kay kay faatu mu war koo jullee kii mu war koo miraas maanaam li nga xam ne mooy liggéey bi gën a rëy ci daaw moo ko yenu ba pare am jot bu doy ni di waxtaan ak ay soxnaam di kaf di ree di jëflante bu ay jëflante yoo xam ni góor bu ko mën ci kaw suuf dañuy génne di ko roy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yooyu bi seen xaalis muy fàttaliku xéewal bu rëy bii mu am tey mooy kan bokk ci mbooloo mi nga xam ne yàlla mi ngi naan leen innama yuridu llahu yudhiba ankum rijsa ahla albayt wa yutahhirakum tathira suñu borom yàlla ci suratul ahzab mu ne yàlla di daa namm daa bëgg subhanahu wa taala yëkkatil leen soril leen sikk ak sobee ci ñaaw ñaaw ak silin silin yéen ñi nga xam ne yéen wër waa kër yonent bi wa yutahhirakum tathira yàlla laabal leen ak laab soxna yonent bi ñu gënoon a laab jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ak yëpp safalam ak jigéen ñi seen gannaaw waaye ay jigéen la woon yoo xam ne ñu ngi nekkoon ci kër dañ doon wàccee ñu ko wax ah kër boobu wax dëgg yàlla jigéen bi bëgg lu baax dafa ko faa ci nag wa dhakurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma di leen jàngal sa fàtt ni koo ko nafaat li ñu nga xam ne moom la ñu wàcc ci seen kër gi ci min ayati llahi wal hikma muy alquran ak sunna kon nag jooy de bint xaalis mi ngi noonu nekk sama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ma ko waxee sànq loxo sa boobu jullit bu jigéen bu nekk war na cee bàyyi xel dafa bokk ci jullit yi nga xam ni jullit bu jigéen war na koo am seemagul borom kër rawatina muy ñaan boromam yàlla subhanahu wa taala mu wërtëgal ko baax xam ngeen loolu bokk na ci aaya ibaadu rahman suñu borom subhanahu wa taala mu ni gaa yi nga xam ne yaquluuna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun loolu tekkiwul ni pour jigéen ñi kese la déedéet góor ñi muy ñaanee borom subhanahu wa taala wërtëgal ko borom kër su baax di soxna su baax su ragal yàlla jigéen noonu la war di tàllalee ay loxoom di ko ñaan yàlla ndax xam ngeen ni salafu saalix dañ doon def lu mel noonu ak salafu saalix dañ doon def lu mel noonu di ñaan yàlla subhanahu wa taala war sëggal leen soxna yu baax jigéen ñi tamit kadaalika di ko def kon juwéen ñi bint alxaaris léegi nag ñëw na ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di tànk nag ci ndox mu sell li nga xam ne mooy balloo ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci ñi nga xamante ni ñooy ummahatul muminin juwéy ya ulama siyar dañuy wax ni bokkoon na ci jigéen ñi nga xam ni ñu ragalam yàlla subhanahu wa taala waaye bokkoon na min al aabidat al qanitat al saimat jigéen yi nga xam ne xamee nañ leen mën a woo mën ndax jigéen ñi dañuy foog ni maanaam góor-góor lu cay jaamu yàlla góor ci rek la war déedéet jigéen da doon nekk jaamukat yàlla bu mag xam ngeen ci lu bari ci lu Aïcha xam weer na waaye min al qaimat bokkoon na ci jullikat yi guddi yi muy juweel yi bint alxaaris ndax kat nag sa rabba bi day jënd bu bu leen fàtte loolu moo tax léeg-léeg jigéen mën naa sànkan lool yàlla wërsëgal ko borom kër bu baax di gën di xef ak xippi rek gën di mu suppeeku suppeeku bu gaaw jigéen mën naa nekk jàmbaar lool it nag sànkan ba am ab doxalin xam nga tubaab yi doo xamante ni daanaka waaye waaye la day taxawaar ci mbedd mi nga am nag moom mu rotti li nekkoon ci yow ci pas-pas ak ngëm lii moo tax aji gëm yàlla bi góor ji ak aji gëm yàlla bi jigéen ji kenn ku ci nekk ci ñoom moom daa war di góorgóorlu ci di ñaan borom subhanahu wa taala lu mel noonu kon jooy yi bint alxaaris bokkoon na ci jigéen ñi gënoon a ragal yàlla bis bu nekk nag da doon jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir di sant ci ay jàngaleen waaye yonent yàlla bi nabi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko xel bàyyi ko xel ndax xam ngeen ni tuubeen la woon tuubeen kan moom may fàttali ci yéen ban xare lañ ko jàppee woon waaye ah ban xare lañ ko jàppee woon ak biñ ñëwee ci biir jullit ñi ci loxol kan la taal loolu su ko doon damaa ci kaani boo xam dafa mel ni mi ngi weccee foofu lu mat juróomi téeméer ci seen xaalis ku ko tontu ma may ko bismillah juwéy yi bint alxaaris ban xare lañ ko jàppee woon ak ci loxol kan la tàbbi woon loolu de waxoon naa ko daf si passé yem ma ci wax ko waaye baa mu ko baamu waat ko gars yi dañuy lekk mbaxal ak bopp jën bopp jën boo koy lekk da ngay gaaw a fànn bopp jën loolu la wolof yi wax de xaw ma nag laa diri nag salaf boobu wér na wala déet juwéy yi bint alxaaris ci ban xare lañ ko jàppee woon ak ci loxol kan la tàddu woon maa ngi jàll defal gis nga yéen ci yàlla nga xam lu mel noonu tax mu koy jege yaakaar naa yéen a ngi dégg xarit boobu yéen ci yàlla bi tere woo ak moom kenn benn bi yéen ci yàlla dafa dugg ci jooy réew bi te xaalis bi def aaj ma fekk ko mu woo moom moo solax gis loolu yéen ci yàlla bi ni ko démb da ngaa wooroon mu ne ko déedéet mu ne ko ba ci yéen ngaa woor mu ne est ce mu ne ko déedéet mu ne ko kon dogal dégg nga da ngaa waroon jéem ci alxames bi mu ne déedéet li nga war suba ci tarbi bi mu ne déedéet mu ne ko kon dogal kon bisu aljuma yéen bi day tere ku ko woor beral ko ci lu dul faat loolu faat maanaam jékki-jékki rek damaa bëgg a woor woor suba rek dàq aljuma dàq aljuma ci wooral ko ak dàq ci aljuma ci fanaay naa bi yéen yéen bi dafa tere sallallahu alayhi wa sallam kon su nit ki wooree aljuma na fekk day jiital alxames wala mu woor samedi loolu suñ bokk na ci tegtal yi lay wan ni samedi doon dañuy tere ku ko woor naate la bu tombeeg noonu ko woor dara ñëw ci ndax loolu mooy tegtal yi bokk na ci mooy yëpp yàlla ni moom woor nga dem mu ne ko dee mu ne ko di nga woor suba te suba samedi la war a wax kon su fekkoon mënuñu ko woor du ko wax di nga woor suba foofu tamit ñu bàyyi ci xel kon jooye yi sul xaari yonent bi doon na ko tedd sallallahu alayhi wa sallam waaye li li mu lay wan ci kon ñi nga doon sànq ci malkam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gis na yonent bi ku bari woon lu muy woor gàttal waaye góor boo xam yow doo wóor doo julli guddi doo julli naaj la doo nangam bu ko laajte ki nga bëgg a tàggat muy soxna si da nga koy jiitu ci li nga koy tàggat waaye léeg-léeg da ngay dégg soxna yi dañoo tàggat dañoo lii dañoo la fekk yaa gën a tàggat ñëpp la borom xam-xam bu ma booxoon rek man su ma yàlla wër sëgaloon soxna ku mel ni Fatima doomu doomu doomu yërëm yi mel nii mel naa mel ne waaye borom xam-xam bi déglu ko moo ba yeggal mu ne ko waa da ngay fenn fexe mel ne Ali naa bi Talib ko su ma yàlla wërsëgal soxna su mel ni Fatima nangam nangam am ay mbir dong la ah waaw kañ nga ko def waaye nag da ngay fexe ne ñaari ñaari tànn yéen a ngi wërsëg xaar yéen a ngi ñaari ko def moo koy jëlee déedéet du nekk kon da ngay mel ne Ali ibn Abi Talib doo ko ñaan Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga kon tuwee yi bisul xaaris ñii la ko yéen yàlla yare waxoon naa ci kàddu mag benn bi yéen bi sëy na sallallahu alayhi wa sallam fekk ci way yemu soob di def ay askar mbokk yi ndax suñu jigéen ñi ñoo ngi def seen i jigéen ah xam naa ne du ma dogu ak dogu waaye de sañ naa leen ba dee ne buntu kër dogu ma toog fa ni su jigéen ñi dee téeméer fukk fukk ñoo ciy matal seen i bistre par mille moo tax li ëpp seytaane di leen mën a foyee da nga leen di fekk dañuy xat xol duñ bëri yërmaande boo duggee ci wujjante moom xaj xadis wala xaaj waxal ba sa xol seet li nga wax lépp waaw lay tudd lu tax ndax sikk dafay may nit ci ak dal daf koy gëmloo yàlla day tax mu gëm ni ma asaabaha lam yakun yuxtiaha wa ma axtaaha lam yakun yusimaha li ñëw noonu rek la mën a demee li mooy noonu rek la ko suñu borom dogalee kii defuma dara yàlla moo nu boole boobu wërsëg rek dara defuma lépp yàlla balaa ñu dugg ca àggal ci ndigal maam aadama la ci la bëgg a woon gis bu ñu demee ba toll deux mille nangam jiw jiw ñoo dem ci ron ca xaar nga ne ko yàlla ni ñu ko bëggee du ma ko defee bëgguma ko garal ma man kese loolu la la waxoon naa ci suuratu Muhammad ba ko ci ni yàq jëf mooy bañ yàlla yoon yi bu ko defee noonu loolu ba adaawa gi am ñaaw njot wax lu am ñàkk amul dal rambax rambax mel ni lu kenn amul loolu lépp bokk na ci li ko waral loolu ñàkk na dikk ndax borom bi dañu ala bi dikrillahi tatma innul qulub maa xam ngeen yow mi dul dikk néew buy dox la néew buy dox xam ngeen néew buy dox néew bi dee kii dox xam ngeen loolu moom xaw a juumal yéen yàlla bi nee na مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت kii tudd yàlla ki ko dul tudd mi ngi mel ni néew nit néew moom arme bi nit moom fii kon ki dul tudd yàlla mu ab néew la wa maa dalik sa borom yàlla dig la ay tawfiq yoo xam ne zikir sàngam ñu ni boo ko defee ci bis boo tëddee da ngay wax la ajana zikir sàngam ñu ni boo ko defee ci bis mën ngaa lekk lu nekk posan sax yàlla musal la ca zikir sàngam ñu ni boo ko defee bët yeeg cat yeeg làmmiñ yeeg ñëpp mën nga caa mucc zikir sàngam bu ko defee day daal day nañ nañ caa yeew ba ngoon jot nga defaat ko ngoon bu ñu yeew ko ba fajar jotaat zikir sàngam bu ko def da ngay yendoo yàlla di la booleeg ay malaaka yu lay jéggalul ba pare nag ñu ne la li ngay defal ak jaamu yàlla malaaka yàlla koy bind di ko yóbbu ca kaw nga tàggale loolu lépp waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu yaroon daf leen yaroon ci di dikk mooy ne ibn al-Xaaris bi kenn la woon ca ñooñu bi mu déggee yonent yàlla bi di jàngale zikr bu jullee fajar ba noppi day toog def ay adkaaram ñun nag daanaka la yàlla xam rek da ngay gis koo xamante ni fab sax ca kër ga lay nekk ah tayal tayal ba ànd ak mbooloo mi julli sax tayal na moom daal ca lu xam lay toog rek dóor ñaar rakkam tëddaat ci li may wax xam naa góor ñi xamuñu ko waaye jigéen ñoom xam nañ li may wax lu mu gis na bu ko defee gis nga boo yeewu képp guddi dëkk ngay dëkk jóge fële fëxër fëxër fëxër fëxër ba yegg rek ni nga sànnee ñu nekk tabla ah defoo say askar nga yeewu defoo say askar parce que da nga jékki-jékki daje kenn bu xëyee daggu saa gis nga yéen yàlla ne ci xadis xadis boo xam ne ci saa yu muslim saa boo yeewoo nga dem jàpp def say askar seytaane bi ngay tëdd dafa yeewoon ñetti yeew karaj demaat ba ca dikk la mu ni karaj dem ba ca tànk mu ni karaj yeew la ñetti yeew yeew bu nekk dafay ëpp day yeew bari ëpp guddi gu neex tëddal yeewu jotatu ko gis nga boo boo boo defee yi ma la wax fas fas yëpp ay fekkee su fekkee ko yéen diw fa asbaha nashitan na muy da nga yeew rek tànkin da ngaa tawar man da nga yeew rek yëg ne am nga énergie waaye gis nga boo ko deful yow bi nga yeewoo sotti woo ba ndax li ko woo defoo say zikr xooloo asamaan si jàng aaya ji nekk ci jeexitalu aala amran da nga yeewu fa asbaha kaslaanan xabiisan na yéen yàlla da nga yeewu tayal yeewu waale bakkan bu bon moo tax nga xëy ni ñoxoon njaay rek nga xuloo ñoxoon njaay rek nga wax kàddu yi safaan moo tax gis nga mbokk yi ñàkk zikr dama ne la mi ngi mel ni di lekk poson jooy yi ñu ko xaalis nee na damaa xëy benn bi toog julli ba noppi li mu jullee mu kanam gaay ci ëttam di def ay azkaaram di def ay azkaaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom romb ko dem doxee ay soxla yonent bi jox ba dellu si fekk Juwayriya mi ngi toog def ay dikram yonent bi ni ko waaw maa jël ci qaa'ida yow mooy bàyyi ba léegi yaa ngi toog mu ne ko waaw waaw yonent bi kontaan ni ko jàmbaar nga def waaye kaay ma xamal la ni yaa ngi toog moom ba léegi man damaa demoon waaye wax naa ci ñetti baat yoo xam ni moo ëpp li nga wax yëpp allahu akbar li mu yeewoo ñett bi fekkagul muy zikr di zikr di zikr ba dem ci bi génn ba yonent bi dem ba dillu ku ne xam ne ni soxla ma ko jëm yonent bi ne ko ñetti baat yi ma wax moo gën li nga ci wax yëpp te lii góor ak jigéen a ko bokk yéen yàlla ko alaa uallimaka kalimaat law law adalahunna law adalahunna bihinna adaltahunna law udilna aw law udilna bihinna kay ma xamal ya ay baat yoo xam ne buñ ko gam-gam lewoon wala ñu peeteel ko ak yii danañ tolloo aw wudina wadanatuhunna buñ ko peetewoon ñu tolloo yéen yàlla bi ni ko subhanallahi adada xalqi ñetti yoon subhanallahi zinata arshi ñetti yoon subhanallahi rida nafsi ñetti yoon subhanallah adada xalqi subhanallahi zinata arshi subhanallahi rida nafsi benn bu ci nekk nga def ko ñetti yoon jël yàlla bi nee na gis nga lii gis nga lii poids la boo xam ne dafa réy réy réy ba mën naa remplacer li nga def ci ay dikk yi yëpp su fekkee ni bokku ci nga def waaw kon boo dikk bi boo la waxee ca lay def moom kon loo looy am lu bëree bëree bëri maanaam subhanallah maa ngi tàmbaal yàlla adada xalqi lu kon la ñu tàkk lépp allahu akbar ñaata nga subhanallah benn ñaar ñett fukk téeméer junni million milliard ñu ne déet bañ dalay fanam ne ko àgg daxal ci rek yàlla maa ngi lay tàbbal lu toll li nga bind lépp malaaka yi la rab yi ci ne dund yi xar yi fas yi mbaan yi mootoog yi melentaan yi sanqalen yi picc yi tout li yàlla sàkk lépp loolu mën nga xam ne mu tekkee ne subhanallah dina ta arshi maa ngi tàbbal yàlla diisaayu arsh wa maa yudrika ma diisaayu arsh ni subhanallah rida nafsi maa ngi tàbbal yàlla ba yàlla kontaan yàlla daal tàbbal naa la ba nga kontaan sax la ñu gëf ci yoo xam ni mi ngi bàyyi ko ci jëmmi ñi koo xam ni oh fii la war na am kani yàlla da koy jox baat yu ràbb yu fas yu gàtt wax tuuti am lu bari gis nga kon yooyu yëpp seen xaalis ñi la dund léegi lii kat mbokk yi daf na war a jàngale ni kon soxna yi war na leen a tàggat ci di def ay seen seen jikko wallahi bu ñu góorgóorlu woon xamoon teg li yàlla wax ci biir kër nañ ko def muy jàng alquran di def ay dikk ah dina soppi ci suñuy xol loo xam ne danañ dund loo xam ne ku ko seen da ngay foog ni lii la saxaaba yi doon ndax ak nuroo xiiroo yeeg ñaaroo yeeg xuloo yeeg jàppalante yeeg jaama def maa la def yëpp dafay wàññeeku parce que albar boobu was tax naa bokk na ci li koy waral mooy xol bu ñàkk a dal kama kama anna ahlal janna yulhamuuna tasbix kama yulhamuuna nafas waa àjjana ñoom yàlla dafa gis nga yow ni ngay ni ngay noyyee lu mel ni yàlla yéen teewalee yéen a sàbbaal yàlla moo tax sàbbaal nga bari ga muy bari moo tax ñëpp ñëpp xol bu ne seen xol borom bi wa nazaana ma fi sudur min xill ixwanan ala kulli mutaqabilin li taxoon nit di bañ morom li tax ma lay sib li tax ma lay xeet li tax nga nangam li tax nga nangam yooyu yëpp yàlla daf koy rocc biir àjjana lu tax ndax yulhamuuna yulhamuun التسبيح والتكبير والتحميد كما يلهمون النفس كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كن فو بقي بنت بي موبايل تخيل السلف الصالح يوصل للصامن تي جانجال يلا نفلا في ذكر في جانب القران في جانب خم خم قول لي مرة بقي بقي tay boo yëkkatoon man te man téere moo gën a suufe ci téere yi ngeen di jàng sax da neex na wala yu demee noonu léegi dama kaa bëgg a jàng waaye sart bi jigéen laa bëgg mu jàngal ma xanaa nga génn zone Dakar bi yëpp te xaw ma koo jëm sax su boobaa waaye bu njëkkoon jigéen ñi daan nekk ay xutaar comme góor yi wallahi la xam ay xutaar ay jàngalekat daan ay saxaaba dañ daan saa buñ mataan a jaaxle ci ay masaayil dañ daan dellu ci lay aayta wala nangam rawatina miraara bu mu daf daa ni man damaa dama bëgg am plaisir ci jaamu yàlla waaye jaamu yàlla bu ma def rek damay gis ni plaisir bi day def waaye mu ne bi ma sooboo ci yoonu sàkku xam-xam dama gis ni plaisir bi mat na sëkk allahu akbar loolu la doon umma darda soxna yi nii lañ meloon maa ngi ko doon wax mbokk yi alxaafid zahabi ca téeréem bu am solo ba di misaanul jaxdi daal dafa wax yoo xam ne ndam la ci jigéen ñi njëkk ñam waaye gàcce la ci suñu jigéen ñi tey alimaamu zahabi nee na sama téere bi di misaanul jaxdi daal fekk naa ko génn ci nangami junniy góor yoo xam ne ku nekk da ngaa baax da ngaa tàggal ba kenn du jël sa xarit waaye nag li ma ci génne ci ay jigéen mat na ay téeméeri téeméer te amul benn jigéen buñ jàpp allahu akbar lii lii ndam la loo xam ni daanaka karraaya ci kaw asamaan waaye gàcce la ci ñun ndax lu tax tey daan jigéen bi fexe yoo mën a jàngale yi ci sax doo ko gis te loolu déer daaw am parce que jigéen ñi dañoo amoon fullaak faayda jot ñu leen ci yàlla sa salam njàng mi du mbirum góor ñi te mbirum góor laaj jigéen te ñun mënuñoo bokk góor ñi di sëmbaxloo sa xalqa yi nga bëgg nga beral sa xalqa yonente bi ne bis sàngam lañ daje kër diw ma jox leen daal noonu la ngeen doon defal ñoom sallallahu alayhi wa sallam maal asaf tey moom li fi am daanaka nekk li ko sax gàcce la kon jooy rek sa xaari ñu la doon dundal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag lépp lu neex dafa am lu ne ca kanam lu koy dox ida ma tamma al amru bada nuqsaanu saa bu mbir matee moom xamal ne ma ngay wàññeeku Juwayri bint al Xaaris malgré li muy dund li mu neex neex ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dee ko nar a coupé muy faatam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbokk yi saxaaba ya ala wajhi al xusamun Aboubacar ak ñu gën a tës yonent léegi soxna ma ala wajhil xusuus amuñ ci seen dund musiba bi ma ta wàcc ci seen dal di leen marqué di xol ñi faatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li lay wan ñun li lay wan ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam martaba ak maqaama ji mu la am ci suñu xol def na mooy léeg-léeg bu ñuy nafa faatu bi yonent bi kenn ku nekk nag sa xolam lu mu yëg nekk léegi rek am na ci salaf saalih ñoo xam ne ah dañ daan dañ daan dañ daan préféré sax di bañ a jàngale hadith yi wax ci baatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak faatoo mooy musiba ci gën a rëy ci kàddu ci jib wala benn nag hadith yonente yàlla beneen musiba ju rëy ci yow na nga fàttali ci bis bi yonente yàlla bi faatu sallallahu alayhi wa sallam moo tax Anas ibn Malik jooy jooy ne di ko faatu na ne waaw yéen yéen bi ngeen tiiree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam néegu leen koo dugal ci mu fax sotti suuf ci kawam Anas ni ko wallahi ba nga ko defee ba nag suñu xol yëpp lënd nga ne ci saxaaba yi gis ba yonent bi dugg see ci biir Madina li feeñ ci leer bu tàbbi ci suñuy xol yàlla rek ko xam waaye gis bi yëpp ñu xaar ko li tàbbi ci suñu xol yàlla rek ko xam saxaaba ya noonu lañ meloon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bëgg ci bëgg allahu akbar ba da ngay gis koo xamante ne day wax ni bu fekkente ni mënatul am sa jigéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg yëgatul plaisir bu muy am ci bët lu muy doyee ci bët am na ko wax na saxaaba yi su ma amatul bànneex xëy su xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man xamatuma bët moom ban plaisir laa ci mën a am xanaa jàngal Quran ak di jaamu yàlla su ma yëgee bisil xaali nekk naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab diir yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xëy jéegaay di koy gis sa atam fukkeel la comme ni ngeen ko xamee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye li gën a kéemaane mooy mbokk yi xam ngeen ni jigéen bu borom këram faatoo mën naa seetiwaat yeneen góor pour ànd ak moom dund ndax yàlla bokk na ci ni mu mooñee l'islam mooy la rahmaan yëkkati l'islam làmbe wu ma ci l'islam damay toog bañ a am soxna ndax yay jaamu yàlla nga ci damay toog bañ a am borom kër yooyu bu jubloo jaamu yàlla xam ne doo jàll ci yàlla déedéet man jaamu yàlla gi ñu ngi nekk ci sa sa gën a ragal yàlla li ñu doon def mu yéen noppal da ne yooyu maa ngi gën a ragal yàlla fuuf damay am ay soxla di lekk di naan di nelaw guddi képp koo xam ne la nga bëgg wuute nag lii ma bëgg lii xamal ni bëggoo ko nag waaye soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom bokkul ci soxna yonente bi ñoom bu soon borom kër faatoo est ce que dinañ amaat borom kër déedéet lu tax wa azwaajuhu ummahaatuhum soxna yoon bi bu ko takk xam nga kan nga takk sa yaay mi ngi mel ne nga dem joxe kan ñu may sa yaay ndax yonent bi ni mu nekkee seen baay am na bi yu aw naa bi muminin yonent moo gën a yey yéen seen baay parce que taxawaayu baay ko indi waaye soxnaam ay yaay lañ ci ñun moo tax xor may yaay lañ leen war a jox moo tax saxaaba rek coow lu ñu bari bari bari ko yonent bi wala muur rek ñu xam ne soxnaa la ah léegi nag xor ma ca tàmbali na waxoon naa ne si doon li baax gis ngeen ay téeméeri téeméeri buntu kër ñu jàpp leen jàpp ay alal ba ñu yëgee ni kii ñu yonent bi takk ca askan wala wax dañu yarax lañ am rus na noo jàpp goro yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xorma di dañ ko doon jox yonent bi di ko jox ay soxna gis nga waaye soxna yonent sa sala ñoom seen borom sa paatoo duñu amaat beneen góor ndax xam ngeen ni wér na ci sunna yonent yàlla bi nee na yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam lu bari bari bari ci ay bal ay soxnaam bal bal ay soxnaam sax laa wax dañuy nekkaat ay soxnaam ci biir aljana ay soxnaam dañuy nekkaat ay soxnaam ci biir aljana sax am na beneen xadis yonent yàlla bi nee na dañ koo laaj ni ko waaw jigéen bu amee ñaari borom kër am ko ba takk mu baax yeneen takk ko wala sax ba keneen takkaat ñoom ñëpp mu nekk seen soxna bu duggee aljana soxna kan lay doon soxla ci ko dëkk rajo nekk maanaam bu duggee aljana ci ci ci ci faatu soxla ci mujjee faatu lay nekk looloo tax yëpp ci sala am na ci ñoom ñoo xam ne ñi amoon ragal yàlla gañ àndaloon bañ toogee waa aljana dañ doon préféré ba ñu amaat borom ci kër ba daje seen borom bokk na ca ñooña ku ngeen ci fàttali Ummu Darda Ummu Darda dana wax Abu Darda li ko yow kat yaa ma labat yaa ma labat ci samay wayjur man day am naa rafet njort ci lii faatu la ko am naa rafet njort ci yow maa ngi lay labat man fa sunu borom lii moo tax Abu Darda faatu Umu Darda toog bañu am borom kër Muawiya ibn Abi Sufyan xoolal allahu akbar al farq ash-shaasi' kama bayna al-mashriq wal maghrib diggante Abu Darda ak Muawiya Abu Darda benn waaye bu am dër Muawiya amirul mu'minin saxaabatul malik waaye gis nga Umu Darda mu préféré ni Muawiya man day am xaral ma taamu woon sama taam tànn ma fii ci àddina maa ko tànn ca sunu borom Muawiya ku ragal yàlla dafa déggoon na xadis boobu bu doon ñu ne danga fi nekk naa ko non xam nga loolu lii non xam nga nii laa di làkk ay daada ñoom xamuñu woon làkk daada ndax xol yi gees naa ko ngëm mu ne ko comme dimbali ko woor maa ngi dem keneen a ngi asma doomu Abubakar su doon borom kër asma bi ci Abubakar Zubayr doon borom kër wax naa ko waxati gëpp dem na sax xëy laa xaw la laa ko waxee Zubayr bin Awaan rësalu yàlla la ku baax la waaye nag ku ko wóor ku naqari deret la xar ba nga xam ni masha Allah asmaa dana toog ba yàgg mu yëg yëg nekk fal dem kër Abubakar boole ko ni ko Zubayr lii Zubayr bu dafa naqari deret waxoon naa ni Zubayr daa fiir a fiir a fiir ba yeneen bi yóbbaale la ci gileemam sax nee na nga dox moom mu gënal firaangam foo ko takkoon yegg na ko saraayam nag ka daali waaye xam nga lu ko Abubakar wax ni ko isbiri dama nga toog jàpp ci say nga muñ Zubayr ku ragal yàlla de te amaana nga bokk ci aj soxnaa ni aajana kon ragalal yàlla nga toog nga muñ Xuzayfa tamit waxoon na ko soxnaam ñu bari na bari na bari na Xuzayfa waxoon na ko soxnaam Xuzayfa newoon na soxnaam su ma faatoo toogal nga xaar ma maa ngi ñaan yàlla àjjana ndax ñu bokk kon loolu du soxla yonent bi rek ñoo ko waaye am na ñu ko def waaye nag ki koy def na fekk mu mën ko
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
kon mbokk yi soxna saa ngi noonu di Juwayriya bint al-Xaaris jaxtali koo naag borom këram ndax yàlla moom na ko mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du amaat borom kër malgré que dund na lu bari ci ay at ndax am xam ngeen ni Juwayriya bi ko yonent bi jël sallallahu alayhi wa sallam mi ngi am ñaar fukki at bi ko yonent bi jël mi ngi am ñaar fukki at yonent bi dund ak moom lu gàtt lu gàtt te dundaat na ba am juróom-ñaar fukki at doog a faat ku guddam fan la ci la ko Abubakar bàyyi ci la ko Omar bàyyi ci la ko Osman bàyyi ci la ko Ali am Ibn Abdal bàyyi ci jamono yi Muawiya ibn Abi Sufyan la doog a faat kon ku guddam fan la subhanallah jigéen joo xam ni daanaka ci moyen de trente ans daanaka ay vingt cinq ans ci la sa borom kër faat nga am vingt cinq ans wala nga am dix huit ans comment sa borom kër faat nga dina ba cinquante et quatre soixante dix ci amoo borom kër ci jàng ci jàngale ko ragal yàlla ñu ne nekkoon soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax xulafaa raashidiin woon dañ koo joxoon gëddam comme ni ñu joxe woon soxna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonente bi faatu na sallallahu alayhi wa sallam waaye ci weer yi continuer comme na soxnaam ya doon def xam nga yonente bi faatoo bàyyi ko ay soxnaam kenn ku ci nekk ma nga nekk xelam nekk di jàngale ak a yare lam doon tànk ci mbalkam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax am bokk na ci ñi nga xam ne dañ doon bari lu mu doon fàttaliku lim dund ak yonent sa salam xam ngeen lu ko waral mooy daa bokk ñi gën a gàtt ak diir lu dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen loolu ñi nga xam ne dund nañu yonent bi lu bari dëgg la yonent bi dina leen marqué waaye kii la yonent bi gën a marqué ndax lim dund ak yonent bi bariwul parce que Abu Hurayra radiyallahu anhu ci ñi nga xam ni ñoom la dund yonent bi gën a marqué da cay bokk lu tax ñaar ñetti at ak tuuti la dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam malgré ça aar na sax nga nekk biir ci xamu koy Abu Hurayra xoolal loolu ñëpp la am nga nekk gën safara waaye gàcce la sax nga nekk julit même boo tuuboon jéem ci ngoon xanaa bu fekkee ay julit nga nekkat pour dëgg yàlla dañ fekk leen xanaa war nañ ko tudd Abu Hurayra moo tax dañu yent bi dama ko daf maa ñaanaloon yàlla dana ma bëgg noonu am yàlla dana def ci xol yi bépp ku gëm yàlla dana ma bëgg bëgg yàlla sama yooyu ila yoma qiyaama man Abu Hurayra mi ngi noonu noonu la soxna si meloon ndax yonent bi marqué woon na ko lool parce que dund moom ak ak lu bari dund gi continué ba ca xilaafal Muawiya ibn Sufyaan te fekk am na juróom-ñaar fukki at ci la ko borom bi subhanahu wa taala jëm comme ni ko ulama fi di waxee ci shahr rabi al awal ci atum juróom fukkeel ci gàddaay yonent bi mooy Ali ibn Abi Talib faatu na ci atum ñeent fukkeel mu defaat fukki at ci biir xilaafa Muawiya ca la soxna lii di baax di Juwayriya bintul Xaaris ñu suul ko fa nga xam ni boo ko taxawee sa yaram day daw ndax ñi ngi dégg ñi ëpp ci ahlu siyar ña nga leen suul ci baax boobu xam ngeen xam baqiya baqiya allahu akbar baqiya day baqiya baqiya baqiyaul xarsad baqiya génn baqiya bi ñu xam nga xam ni ñi gën a tedd ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko tëdd yonente bi suul fa ay doomam suul fa ay jegeñaaleem suul fa ñenn ci ay soxnaam ñu suul fa ay soxnaam ci ginnaawam ñi gënoon a baax ci saxaaba yi ñu suul leen ko bu xiyaamu saa taxawee day mbooloo ma nar a génnee ko danañ ñu gis mbooloo yu bari ci armée di addina wallahi alazim moo tax boo fa taxawee wallahi li ngay njëkk a yëg mooy fii subhanallah ñi fa dem dañ lay wax ni da ngay gis koo xam ne daanaka bu amul sa xam-xam dafa gis rek bu ko taxawee nga tiim ñu wax la ña fa nekk li ngay yëg ci sa xol du bokk beneen armeel booy yi armeel yu simple ñu gën a baax ci jaami yàlla yi ala wajhi l ard laa wax ñu tëdd ko doo gis table bu ñu sam doo gis xeer wu ñu teg doo gis sunu tabax mu ñu koy defal ndax dañoo gën ñooña déedéet ñii bañ ñi ngi leen di xañ yërmande yàlla ndax taw yërmande la ci fii dund comme ni nekk yërmande ci ku faat taw baa ngay wàcc ci seen kaw yàlla mu ne wa nazzalna min as-samaa'i maa'an mubaarakan ndox mu barkeel la waa kaw suufa ci jëriñ waa bii suuf jëriñ ñu nekk armée yu ñu organisé yoo xam ne da ngay xam ni fii mooy yoon yi te mooy nangam mu tànn ñareet nag lim lay wax naan da ngay dem ñu naan la fii la imam Malik nekk fi ay kàddu la amul benn armeel buñ koy wax naan fii mooy diw fii mooy diw lépp a maase ni ñareet xoofal li ëpp saxaaba yonente yi tëdd fala yonente bi toogoon sallallahu alayhi wa sallam ba benn guddi mu yee bëkk néegam ni ko jubal mu jub mu ne ko kay gunge ma abaa mu war jubal mu ne ko lu xew mu ne ko sama borom yàlla daf maa digal ni ma naa leen sa armeel ya jéggalul waa armeel ci xaaju guddi ay une heure du matin deux heures subhanallah boo fekk yonente bi ñu ngi ci ay dix-sept jours yu mu jëm wala vingt vingt et quelques jours yu mu jëm yonente bi ci xaaji guddi mu dem ci baqiya ñaanal saxaaba yi ni leen yéen de maa ngi leen di ndokkee ci li ngeen tëdd nii ba mu leen ñaanalee ba pare mu ne leen fitna yaa ngi ci suñu kaw mel ni dogi ci guddi gu lëndëm mu jàll rek beneen topp ca gannaawam wax la muy wax ba yeggal daal di tourné ñibbi ndax bi mu ñibbisee ci la ko feebaru bopp bi ko faata daal di daane sallallahu alayhi wa sallam foofa la ñu suul Juwayriya bint al-Xaaris ki nekkoon amirul madina muy Marwan ibn al-Hakam moo nekkoon amirul madina ci jamono jooja Muawiya moo ko fa tegoon moo ko jullee kon tënkëb Juwayriya yaa ngi noonu ci ñaari dara maa ngi fàttali wax fay na dikkal tan faawul muslimin jar ci mbokk yi nekkut ñu dégg rek dund saxaaba yaag nan dundee pour am ko ñu infa am information wala am saxaaba déedéet waaye li dañ ko war a wàcc ci waa kaawul xayaat rawat na bind bii nga xam ne jigéen ñi ñoo ko moom ndax bu ma jugee danaa jéem a def ni ndaw si ci sàmmonteeg askar yi ci sàmmonteeg góorgóorlu ci woor yi ba ñu may jubanti naa bis bi la ñuy woor a bis bi duñ ko woor ndax dinaa góorgóorlu ci ragal yàlla bokk ci minal xaalisaati saimaat ndax dinaa ndax dinaa ndax dinaa yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni kenn ku jub war na ko laaj boppam comme ñi nga xam ne buñ defee dara te góor kon lii mooy seen kët bind bi dafa mel ni sama téere bi dinaa ko yóbbaale waat ndax nee naa gars yi juweer yi dañ leen xaaris ci ban xare lañ ko jëlee woon gars yi ni kenn ñu ngi ko jëlee woon ci bañul mustaliqa ci xagatul moraysia ci aaya ci wàcc sax te suratul munafiqun wàcc sax allahu akbar lu lu rëyee nii symbole bu magee nii te fi ne yii pëb dalukaay yëpp gars yi xam na symbole bi ci l'islam nga xam ne yii yëpp moo yëpp ci la aju te mu tege woon te loxol waa ji baax jooju nga xam ni ah moom daa jàpp ne suratul xujuraat moo tax mu wàcc mu jooy ba kuri jooy laa wax lonk ci bopp lalam jooy ba kuri ba yonente bi di ko laajte ñu ni moom kat nee na làmmiñ bi daa rëy la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi bu yonente bi wax bu leen yëkkati seen baat te man yàlla daf maa nattoo baat bu diis kon aaya bi ci man la wàcc mu toog ay fan ñëw jàkk di jooy ba kuri yonente yàlla bi xool ko gis ko mu laaj saxaaba yi ñu ni ko benn waaye ni ko man de dëkkandoo laa xaar ma dem xool mu dem fekk fa ca la nekk mu ñëw ni ci ne ko yonente bi yonente bi daal di reetaan ni ko absirhu bi annahu min ahlil janna demal ne ko moom ci waa àjjana lay ba tëddee shahid lii moo ko firi mu génn xam naa ba léegi xamu leen ko xanaa ma wax leen ko Saabit ibn Qays ibn Shamma kon maa ngi yóbbuwaat kaamil bi xam naa bind biir ñëw wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain
الله أكبر